loi d'amnistie bi amul woon benn place ci jalo c'est une manœuvre parce que dialogue bi président daf ñu waxoon benn ponk lañ fay waxtaane c'est une manœuvre c'est une manœuvre politicienne parce que loi d'amnistie gouvernement cote moo am responsabilité président wax na ko euh, moom mooy président de la république moom cote moo am sañ-sañ ne man damay def loi d'amnistie et loi d'amnistie mënul jaar ci non c'est une responsabilité exclusive du président de la république. mu yóbbu ko assemblée. mënul nekk ci dialogue mënul nekk assemblée mënul nekk ci parti politique. non mais loi bi la koy yóbbu ñu voté. voilà day jël responsabilité am. Euh, je pense que pour loolu euh, y a pas de commentaire particulier parce que euh, deux mille vingt et un deux mille vingt deux deux mille vingt vingt quatre c'est les mêmes événements. tey jii on est à plus de mille mille cinq cent prisonniers politiques ou des prisonniers mais loolu si tu imagines plus de mille cinq cent président Macky Sall jóge fii 2 avril mais c'est impensable que Macky Sall dem bàyyi nguur bàyyi ci gannaawam mille cinq cent prisonniers donc la loi d'amnistie c'est c'est d'abord pour libérer le président cest à affaire boobu bañ ko dab waaw mais li jaaxal nit ñi doyen mooy ah. libéré moom kenn du gis ñuy libéré nit nga ci mer ci yoon parce que ku xam li ci kaso wala nga à peu li ci kaso doo yéene kenn kaso mais bu dee dañuy jël ay fait parce que nee nañ du amnistie ay fait la ñuy amnistier ay jëf la ñuy amnistier bu dee grâce jëmm doomu aadama la ñuy gracier mais fait yi bu dee li am bërëb euh, tel jour ba tel jour mais bu ñu fàttali doyen am nañu ci am na ñu ci faatu de am na njabootu ñoo xamante ni ñàkk nañ ci seen i doom ak yeneen ak yeneen dañu ñu promettre woon benn enquête enquête bi kon yooyu yëpp ab comme perte de profit quoi dañ koy gas suul et puis on n'en parle plus. non disons que voilà la loi d'amnistie pourquoi mu mu diis pourquoi mu nekk responsabilité du chef de l'État c'est-à-dire président la République mooy xool par exemple comme ni mu ko waxee deux mille vingt et ba deux mille vingt quatre quatre maintenant loi d'amnistie bi il faut mu nekk euh, dans un domaine précis baam tous les faits sociaux yi nga xam ne entraîné na emprisonnement un fait social mm -hmm. c'est-à-dire que am na crise 2021 il y avait euh, au départ euh, euh Sonko 2022 c'est une révolte 2023 c'est c'est une euh, c'est c'est une révolte plus organisée donc c'est l'effet sur la président day identifier tous les événements majeurs ne la par exemple qu'il y a eu tel fait un événement mmh. on a emprisonné tant mais bu booy emprisonné il y a toujours des motifs mm-hmm. est-ce que ces motifs troublent à l'ordre public est-ce que c'est des motifs euh, atteintes à la sûreté de l'État est-ce que c'est offense à, au chef de l'État donc c'est tous ces motifs là ñooy euh, ça, ça va être l'argumentaire de la loi d'amnistie parce que c'est pas des personnes qu'on amnistie c'est des faits mm-hmm. donc so amnistie euh, des des faits léegi on, on va faire le recoupement c'est, c'est-à-dire que euh, les délits d'opinion mm-hmm. ñooñu mmh. ils vont bénéficier euh, de, de l'amnistie mmh. euh, offense au chef de l'État atteinte à la liberté individuelle euh, trouble à l'ordre public donc ça c'est une série maintenant beneen série bi c'est le crime uh-huh. est-ce que le président va faire une loi d'amnistie général uh-huh. son idée c'est de faire une, une loi d'amnistie générale générale oui. donc tu auras les faits yi peut-être que tu des crimes euh, parce que la loi sur le terrorisme, c'est la nouvelle loi qui oui. s'applique euh, de manière aveugle sur euh, des délits divers. Hein. Uh Mais bu ñu la qualifier acte terroriste, tu tombes sous le coup de la loi, tu vas euh, donc président moom dina saytu pour xool tous les faits qu'il veut amnistier ba mu des benn ba mu des benn c'est le cas de Ousmane Sonko. Uh -huh. comment ils vont classer Ousmane Sonko est-ce que c'est dans l'optique de la réconciliation nationale est-ce que c'est la pacification donc c'est ça va être une loi de portée générale uh mhm. -huh. c'est-à-dire Ousmane Sonko dina ci bénéficier Diomaye dina ci bénéficier l'étudiant l'enseignant beaucoup de gens vont en bénéficier y compris bah, peut-être des gens du système parce que c'est une euh, loi de d'amnistie euh, générale